salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi damay ñëwaat ci vidéo Serigne Modou Lo Ngabou bi parce que ñu bari def nañ ci vidéo ay bousee ku ne maa ngi koy dégg ñuy wax ñu naan xanaa du ngeen taaliba Serigne Touba ah taaliba Serigne Touba sax bëgg sëriñ Touba des na ah boo dee weer nit wala boo dee toroxal nit da ngeen di jaawale taaliba Serigne Touba ak kuy mbubboo Serigne Touba sëriñ ah Serigne Modou Lo ah man kilifa laa ko jàppee pour bañ koo weer mais man xam naa sama jëmu bopp ne du kilifa. parce que kilifa diine ah, du du doxalee nii yéen a ngi tooñ Serigne Touba nag parce que Serigne Touba nekk na fi ba nim fiy jógee ah mos sa def lu ñaaw alxuraan nañ ko xame yàlla moo ko gënaloon lépp muy boromam waxtoom bu mostaan am da koy perdre ci yàlla ah. daanaka dundam gi yëpp yàlla la ko dox ak yonent bi ah ngeen koy tooñ nag ah di ko mbubboo naan taalibu Serigne Touba Serigne Touba xamul lu ñaaw. sëriñ Touba xasaay di la fi indi na jaamu neen yàlla teg leen ci yoonu siraatal mustaxim ne leen yoon baa ngi nii bu ngeen bëggee egg si yàlla mais sëriñ boo xam ne day mbubboo sëriñ Touba woote diine ba taaliba yi woy su ko muy tëddee seen jabar man dafa am lu may seet mais kaa bii nii bu ma ko traité woon dinaa leen génneel ay dossier génne leen loo xam ne kenn yuru ko du youtube duggul fenn man rek maa ko am barki sëriñ Babacar si mu ma yaakaar mais man maa bëgg a bàyyi mu sedd suturaal ko ndax li mu jotam ay taalibe mais man xam naa ne du kilifa diine kilifa diine du doxalee nii bu leen tooñ Serigne Touba bu leen tooñ sëriñ Touba bu leen jaawale taaliba Serigne Touba ak kuy mbubboo Serigne Touba Serigne Touba xamul lu ñaaw du ko def sëriñ Touba xamul lu ñaaw du ko def Serigne beeg waxu cagaam yi ci ojo yi ak yëfu caga yi muy wax maa gën a digg léeg maa gën a rëy léeg maa gën a nangam ngeen koy jël di ko défendre ba pare di jaar ci Serigne Touba di tudd muri di naan Serigne tuubaa nangam. déedéet murit piir minir dëgg murit saani ku doyloo sëriñ Touba bëgg sëriñ Touba noonoo du mel ne sëriñ bi bu leen tooñ sëriñ Touba sinon bu ma yëngoo rek tas dëkk bi parce que